développé mbay mi nga dëkk fi ñu naan euh, la vallée euh, ndax da nga jàpp ne mën na ci jouer dara pour pour pour ñu egg fi ñu jëm sécurité alimentaire. mais c'est la c'est l'alternative euh, Mamadou Awa Ndiaye c'est l'alternative ko jëlaguñu la la chose vraiment. à bras jëlaguñ ko avec la volonté aujourd'hui li may dégg les discours que nous entendons aujourd'hui avec les petits producteurs da ngay waxtaan ak moom c'est que l'initiative elle le ministre de l'agriculture pour la plupart temps loo koy dégg muy parle de l'agrobusiness mais l'agrobusiness soo koy wax tu parles des milliardaires tu parles des les grandes firmes tu mm. parles des fermiers qui ont des milliards qui ont le matériel agricole mais les petits producteurs Mais ce qui se passe aujourd'hui, moi je le dis, et je le répète, dans la vallée du fleuve Sénégal, qui devait être la Californie du Sénégal, qui devrait faire nourrir la, toute l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui c'est un problème c'est ce qui se passe. on a un ministre de l'agriculture boo xam ne il est du milieu te c'est quelqu'un boo xam ne on le voit sur le terrain euh, est-ce que tamit euh, les acteurs ak rencontre yu ni mel mënul aboutir ci ci loolu. non c'est-à-dire que aujourd'hui on prend le président Diomaye. Mhm. ñun ñëpp gëm nañu gis nañu on salue le patriotisme. du monde rural même on l'a vision est là Sonko vision ak matérialiser cest dire que li ñu gëm mooy il faut diminuer les les les les, discours diminuer les théories. dem dans les dans les dans dans, dans de, de, de, de la vallée. aujourd'hui Mamadou est-ce que tu sais aujourd'hui fi ñuy wax nii nii nii nii nii la paille de riz paille de xam nga luy paille mm-hmm. ñaxu ñax bi ceeb ñaxu ceeb bi. li nga mm-hmm. xam ne dañ ko doon mayee di ko sànni aujourd'hui ça se la paille de riz du vingt cinq ak vingt cinq ar ça se mhm. vend à soixante mille francs pour les pour pour pour pour pour pour aliment bétail loo bëgg wax ne que ne bu ñu béyee du ñu sànni leen na léegi lépp la mais ça n'est que doxul aujourd'hui dans la vallée l'hivernage tarde à s'installer aujourd'hui ils sont fatigués gisuñu sax semence hmm. ils n'ont ils ne voient même pas de semence semence de riz on a on a on a vendu en grande pompe cette campagne agricole mais non tous les efforts du état bi fournir c'est toute la compte le contraste le paradoxe aujourd'hui qui se passe dans la vallée moi je parle moi je parle en connaissance de cause mais je parle en connaissance de cause au moment où nous parlons ceux pour que ñu cultiver le riz mhm. ils sont obligés de xaar ñi nga xam ne ñoo demoon contre saison ñu pare ñu certifié ko def qualité qualité semence yi eggul ci ñoom mais eggul ci ñoom semence ceeb bi yeggul ci ñoom gisaguñ ko aujourd'hui il faut ils sont obligés d'attendre d'ici la fin du mois de juillet pour que ñu mën cultiver un peu le, le riz gisuñu semence bi gisuñu ko et li ma la wax aujourd'hui mhm. mais au-delà de ça l'élevage mais demal mais demal dans la zone sylvo-pastorale ils sont tous partis avec leur le le le le leur troupeau ils sont tous partis. mais comment comment comment comment faire pour ñu intéresser waat Euh, ci ci ci mbir mi muy mbay mi muy élevage bi on a des dirigeants yoo xam ne leur discours sens boobu la jëm donc qu'est-ce qu'il faut concrètement faire jamono ji nii mais la volonté d'abord c'est de mettre les moyens qu'il faut les moyens au-delà des semences la formation aussi mais la sunu gars yi dañu doon kii dafa dafa weesu c'est c'est révolu xam nga affaire bi sax warul nekk des des d'annonce dafa war a nekk des réalités aujourd'hui qui sont sur place. dugg dans la vallée du fleuve dugg dans la Nambé dugg dans la Casamance mais c'est ça les réalités c'est pas de rester là à discuter avec les gros business de discuter avec les grands fermiers c'est pas ça la réalité feneen la c'est sur le terrain tu as 240 000 hectares tu n'as même pas encore euh, aménagé 35 000 hectares.